Mass maa lay ziar. maa lay delloo ziar. Euh, depuis sa combat double moteur ba léegi gisaatuñu la est-ce que pro est-ce que proposition proposition bi nga am pour yeneen adversaire ñu ngi may naaw ay adversaire mais si biir adversaire yi taamu rek. waaw ah, ñu lay proposé fi mu toll nii. waaw ñu ngi may proposé ay adversaire comme kan. kon Yékini Junior. Yékini Junior. waaw. ak kan. Alla Rose. Alla Rose mais ba tànn ko ba léegi. déggoo li ma la man maay toog rek làmb moom fi ta teg man lu làmb dafa dafa fëkk suma lépp lépp suma live lépp làmb daf ko fëkk man bon man tooguma fi pour lu dul làmb waaw. mais ñooñu nga wax ku ci gën a sori ban moo ci gën a sori. déggoo li ma laa xanaa man làmb moom fi bàyyi làmb moom fi bàyyi maay toog di xaar promoteur yi fu ñu yemax ñoom rek ñu xam ne foofu la waaw. mais mais da nga wax yéen ñu ngi dox sa diggante ak Lac Rose ak. ak euh, kii Yékini Junior. Yékini Junior. waaw man la dañuy wax ñeent ñaar kan moo ci gën a avancé ban waxaala ban promoteur ban si ban combat lañ gën a avancé. si ban combat lañ gën a si nag. wax fa dëgg yàlla parce que waxuñu ma si combat bi bàyyi bi parce que si ñaar yëpp lañ may wax ba nii may wax ak yow nii si ñaar yëpp lañ may wax waaw. mais tàmboo ci kenn si ñoom ñaar. non bu ma amee Yékini Junior moo may gënal sax de. moo la gënal moom fi bàyyi. Mhm. comprendre muy Lac Siteu comprendre nga Siteu ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam bu sedd guy suba comprendre nga na jàpp Papa Sow jaxase ka sànni ka fële rek gannaaw bu yaru boobu moom Papa Sow may ma sens ko waaw noonu la demee. jàpp ko jaxase sànni yomb dina yomb. non noonu lay demee noonu lay demee moom taalibe Bamba bu bu ko nuyoo sax Papa Sow day ñëw noonu la demee comprendre waaye kon ñu continue ci combat bi yaa dugg ci combat bi. Hmm. ñu gis Papa Sow aussi combat bi enjeu ci côté am créé bu bees. Euh, jóge ci jóge ci ci defat suma jumul est-ce que bu ñu walee loolu yëpp combat bi dina yomb ki Siteu waaw xam nga tey làmba ñaar la làmba mooy ay affaire yi benn équipe ak benn équipe loolu yëpp après leneen la dafa jot rek mu ñibbi comprends nga te ku màgg ñibbi nag comprends nga te lu mu guddi guddi parcelle lay fanaani kon ni ñuy wax guddi guddi baat ñi mu doon mbër mu yaru mbër mu am respect mbër moo xam ne moom la ñu war a fal mbër mi gën a yaru si àdduna bi moom la mais maa ngay ñaanal yàlla may ko defet si kaw Siteu defet bu yomb sax waaw ah, loolu laa koy ñaanal te man si Siteu laa far nëbbatuwuma te Papa Sow bu ma la ko woon yow laa faral sax war na tiit naka Siteu jàpp ndànk rek daan ko te bañ ko gaañ ko waa parce que grand bu yaru la naka Siteu jàpp ndànk te bañ ko gaañ waaw fi fi ne jaaroon ak moom daal na fa Siteu jaar moom rek. kon nga jàpp ne Siteu mag lay bëreel yow ni la déggee. mais mag lay bëreel mag lay mag moo xam ne boppam rek ama Papa moom ku ko xool xam ne mu ngi si mag moo xam ne day lekk ba suur teel a di teel a tëdd di teel a yeewu comprendre nga am euh, avenir bu baax comprendre nga xale du ko yëpp quoi moom loolu la wax mais xale bi nga xam ne moom làmb ji moo ko gënal ba kenam te lii ko topp toppul Papa Sow kon si daal ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam. waaw ñun est-ce que lu gars yi wax nga ci loolu ñu ne euh, bëre bi Papa xeex bi Siteu. non man nangu ko loolu. si bëre bee xeex bi ñoom ñaar dañ ko séddoo ko. Hmm. muy Papa Sow muy Siteu ñoom ñaar ñëpp wane nañ xëy ñoom ñaar ñëpp wane nañ bëri mais man daal koy sax ma loolu mooy sama avantage mooy Siteu yaa na nga yàlla may ndam man loolu laa ñaanal waaw. te boo ko jege woon loo koy conseil ci suba incha allah. bu ma koy conseil dinaa ko conseil yaa man yaa fa doole comprendre nga jàppal Papa nga daan ko nit bi te bañ a fooyee làmba ji bul topp public bi wala enjeu bi wala supporter yi ba fàtte ne yow Papa ngay bëreel. Mhm. ñu gis taayu Papa Sow ñu bëri wax ne mën na ko poser problème parce que ñun ñaar seen différence taay dafa xaw a bëri Siteu sut. mais loolu du si dara ay kii sut naagaam sut loolu du dara si làmb loolu loolu loolu à làmb ça n'a rien à voir bokkul sax kii gàtt naa kii njool na noonu loolu bokkul si làmb. Mhm. comprendre nga Siteu mbër la mooy xale moo gën a soxla Papa Sow. Papa Sow dafa bëri igideem dem pour am ndam comprendre nga mhm. Siteu ñëw pour war a ñoom ñaar ñëpp ku ne jógee si defet kon combat bi ku si ne am na lu mu la jaral. comprendre nga bu ñu prononcé normal ku si ne am na lu mu la jaral mais mënuñu prononcé parce que dañ far parce que nan lañ faree mooy Cissé la parce que ñoo bokk benn igri mu doon suma ni doon suma xarit lu ma xewle mu taxa si rib comprendre nga kon si ne day sot si côté comprendre nga mu doon koo xam ne nag daf daf ma am fu ma teg ba nga xam ne am na fu ma teg comprendre nga kon boo amee combat lii rek même démba démba rek muy jël benn tiset ndeysaan yoo nekk sama mère joo sama papa tiset pour ñu supporter ko comprendre kon tey ñu ngi koy ñaanal ndam bu sedd guy nag. bu sedd guy waaw. Hmm. yéen a bokk écurie yéen yéen ñuy entraînement est que forme forme physique bi yor instant bi li dal la waaw Papa Sow moom dafa ñaax Siteu moom. parce que combat bu njëkk bi bi a ne si. ah bii ñëwaat dinañ gis beneen Siteu. waaw moom bi mu waayee loolu Siteu dama jàpp ne daf parce que moom daf ko waa cadre de sportif. Hmm. mais loolu dafa defar mentalu Siteu bu baax. parce que Siteu boobu commencement dama yaakaaroon ne fonkul combat bi mais nii bi nga Papa say tànk yi dara si boobu ba tey mu ngi rey boppam te forme bi macha allah fan yii yëpp ñu ngi contact foofu mais macha allah. te am nañu xel mu dal bu baax. Mm-hmm. am na nañu yekkim bu baax ne Papa Sow Siteu man naka daan ci lu yomb yomb. ci lu yomb waaw kon combat bi nga mu du yàgg. non déggoo bu yàggee bu gaawee yëpp Sall Siteu yaa naka yàlla may ndam. Mm-hmm. kon yaa ngi bàyyi sa xel bëre ak Papa Sow bu génne ci combat bi dama ne woon dañuy bëre sama gars yi na ma si làmb loolu tax ma bëgg a moom si la nee naa nga bëreel sa combat Papa ngir man comprendre parce que bi mën a dañuy bëre yàgga yàgga dañuy bëre samay morom ñëpp may nuyu grand isaapo yi ma lii mu ne bu làmb bu fekkee ba kenn bàyyi nañu fi koyen sa Papa dinañ mos a bëre comprendre moom te Papa Sow ñëw na ban ñi seedaan ma fi mbapat voilà comprendre ma daan jël la bu rëy nag si commandeur kon dañuy ñaan yàlla rek bëree moom te moom lañ bëgg a bëreel nag boo fa dëgg yàlla Papa Sow ñu ngi koy ñaanal defet bu seede guy mu ñëw may ma sens loolu rek laa koy ñaan waaw. jaajëf Koz loolu tàggoo. jaajëf xanaa nga champion yi fi nekk ku mel ni Boy Bargny parce que dañ ñëw tey pour soutenir Forza. si bésam yendoom bi. comprendre nga gunge ko. Mhm. xamal ne mu ngi si biir Boy Barñaa ngi fi Kabla ngi fi Aare baa ngi fi ay Pape Sembène ay euh, Issa Dioubé booy ñëpp ñu ngi fi booy mbëri comprendre nga Aare baa ngi nii toog comprendre nga booy yaa ngi nii comprendre nga ay Ibrahima ñoom ñëpp ñu ngi fi de comprendre nga ay combat ñuy ñuy ñuy jëmbat garab goo xam ne tey suba dafa war a meññee te bu meññee dafa war a tas si biir Bargny mais jëmbat nañ ko ba pare ba mu am ay xob ba bëgg a meññ ba génne sax ay ay fleur kon lu lu si des mooy mu meññ ba ku nekk Bargny ku ne tee si benn branche boo xam ne fi nga tee nii parce que il est temps ñu dégg Bargny fi ñuy dégg ay Géejawaay fi ñuy dégg ay Fass fi ñuy dégg ay ay Parcelles fi ñuy dégg ay Pikine parce que talent yooyu ñu ngi fi man booy ñoo ma daax a bëri fukki junne yoon tey boo na aare bee ma jàngal bëre tey loolu ku gis bëre Cohen si na aare bee nga jàngal bëre kon loolu waratuñu nata bëre booy Bargny ngi nii ma ngay conseil dama na gaan yaa ma daax a foofu amul ma lay conseil bi joo ko nga respecté ka comprendre barki Mouhamed Boye ma daa a bëre billaay wallaay ñoo ma daax a bëre te am na ay talent yu fi ne Kebla Bis moom moom jinne la comprendre nga boo yaa ngi fi te incha allahu rabi si kanam ngeen comprendre si kanam am na yeneen boo yuy fël la ay maam ay Malta ay ay sortan fëra ay euh, Mamoussa ay euh, Balde sama pël fuuta bi mu ngi ñëw naka kenn bàyyi naka gars yi bàyyi xel comprends nga booy yu bëree bëree bëree bëri ay booy ñaar deux comprends nga ay birinoo dafa am combat la deux ñu koy ñaanal yàlla may ka ndam lu sedd guy moo diggante ma ordinateur ñu ngi koy ñaanal yàlla may ka ndam bu sedd guy parce que ñun Bargny bu ñu naree am xolu ki ñaan si mbër yàlla bu ñu jariñu si làmb ñun ñëpp ñoo foondoo Coense bu jaayee arrêt bi six mu saf ko arrêt bi dafa ñàkk fayda ah Coense bu jaayee kii moo doon toog samay cumbukaay booy bar Bargny mii tey mbër moo ko jëlee si samay cumbukaay comprendre nga tey bu ñu demee ba leen di jaay six wala ma ngay jaay këble bis te ñu foondoo te bi ñuy bëre man bokkoon naa si ñi gën a cuune si làmb est-ce que ça li ma daanu si mbapat dinaa ko daanoo tey si àddina comprendre nga mbapat li ma si daanu gëw ma ne sax daan naa ko arène gëw ma ne daan naa ko si làmb li nga daan si mbapat li ma daanu si mbapat ah li nga daanu waaw si sama dëkk boobu bi may jàng bëre li ma daanu fii mais yàlla daf ma dimbali dañ ma daanoon dañ ma jël micro bi man ne leen ku ma daan ren déwén kenn du ma daan yàlla teg si barke ba nii comprendre ba nii ba nii koroog jooju la ñu gëj gis sama defeet ba nii comprendre kon ñu ngi ñaan yàlla champion yi ne suñu gannaaw doon suñu ay rak ñenn ñi doon suñu ay génération ñu leen di ñaanal yàlla suturaal leen si làmb ba li ñu ñàkk làmb li mu leen xëñ de ba mu làmb man leen ko joxaat comprendre mais mais yow tamit c'est Amadou Bamba ñu ngi lay bëggee di waa 4appuis TV ñu ngi bëggee ñëpp di si aan ñëpp champion mais dañu bëgg ngeen ñëw di wane booy yi ngeen bañ a far dangeen ñëw di jël ay booy bari kii fan yi passé la fi def événement arène nationale loo xam ne kenn dootu ko nettali mobiliser yàlla may ka ndam lu gaaw ndam li est-ce na 30 secondes sax. matu ko si combat dañuy ñëw incha allah. na gars yi ñëw jàpp si wane suñu booy. aare baa ngi jinne mbay moo fi bëree moo fi bëree ba stade bi ñëpp jóg taxaw la yoo nga yàlla defal na. jaajëf kon waaw jaajëf dañu ñëwaat incha allah dañu ñëwaat prochain combat day ñëwaat. incha allah jaajëf yow jël affaire yi. waaw incha allah si sànqat ak yi euh, partout dans le le monde di leen jox rendez-vous beneen yoon incha allah beneen invité toujours ci waxtaan lamb jaajëf